jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi fii ci euh, mairie bu Tivaouane ngeen gis ojan forme bi nga xamante ni démb moom laa wane woon Abdoulaye Mboub euh, tey ñu gis nit ñu bare Abdoulaye nit ñi ni ñu bare est-ce que yaakaar nga di ngeen pare balaa balaa balaa balaa 14 heures. waaw El Hadj Ndokh TV ñu lay nuyu kontaan sa taxawaay di féliciter nit ñi bu baax parce que lii wane na ni nit ñi na nañu importance ci audience foraine bi. Mm. mais di la wax El tey balaa 20 boo fi ñëwee day mel ni fii kenn nekku fi woon. ci kàttanu yàlla ñëpp danañ jàll te ñi ngi ñaan yàlla ku fi ñëw rek yàlla nga am këyit. mais am na ñoo xamante ni dem ba tey dañ may woo di ma laaj ndax est-ce que ñoom mën nañu ko ne li ñu bëggoon xam mooy ñi nga xam binduwuñu woon ba tey nan la ñuy def. waaw foofu noonu élage arrêté nañ dépôt yi parce que audience bi tay la kon dépôt yi arrêté nañ ko waaye président ñi ngi koy ñaan am na sax ku ko jottali yóbbante bi pour mu mayaat nu beneen journée audience ci mois de décembre. tey yaakaar na ni danañ ko may moo tax képp ku amul chance jàll tey am nga chance ñëwaat déposé hélas ñuy rappeler nit ñi rek que ni dépôt yi le matin élèves yi la ak daara yi ñoo njëkk jàll gis nga leen ñoo nekk ni bu ba ci kanam les nouveaux quartiers ñëw euh, les anciens quartiers non les nouveaux quartiers sax comme ay kër kër kër Xaali ay kër Ndiobo kër kër Saalum Mata Yajin un Yajin deux ñooñu ñooy ñëw bu ñoo ñëwee ba quatorze heures quartier yi nga xam ne nag yàgg nañ fi tel que ay El Hadj Malick quartier Kër Matar ñand xum Kuli ay Daaru Salaam Diallo ñoon ñooy ñëw à part de quatorze ba nag dossier yi jeex ba vingt deux heures vingt trois heures ba une heure du matin danañ fi toog recevoir ñëpp ku nekk ñëw tribunal bi déglu la may la kayit wala mu bañ laa may. kon mën nañoo am yaakaar daal yàlla mën naa def ñëpp dinañ jot seen kii. waaw ci kattanu yàlla am na ci yaakaar bu baax waaye di wax nit ñi tamit tey ku jàll. du tay tay tay rek la sa lépp di pare tribunal bi day jëlaat dossier yëpp yóbbuwaat tribunal parce que ñoom dafa am liggéey buñ ci def suñ ci paree nag jox ordre